organisation boobu pour faire face à cela et fan ngeen jàpp ne a réagir à partir du avril ou avant le 2 ah avril. c'est maintenant euh, il c'est faut pas attendre le avril c'est maintenant qu'il faut mettre la pression pour montrer que le avril il ne sera plus président c'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser comme ni le combat euh, juridique attaquer texte mais il faut le faire aussi au niveau politique bu ñu xaaree de avril <laughs> ce sera trop tard hein ce je disais au, au début de cette émission que l'espoir est permis est-ce que da ngay confirmer loolu mun nañu continuer di am yaakaar qu'on retrouvera le Sénégal démocratique avec ses piliers yi nga xam ne moom la ko àdduna bi yëpp nawee ko mais le Sénégal est un grand pays le Sénégal est moom laa lay wax au début de l'émission boo gisee réaction yu bëri yi nga gis un sénateur américain di indigné wu nga gis la presse française des chroniqueurs et cetera nga gis des des des des des organisations africaines di réagir euh, les Allemands qui sont tellement froids di réagir tout le monde réagit c'est parce que Sénégal dafa am fu ñu ko teg te ñun ñoo xeeb Sénégal quoi ñun Sénégal yi nga xam ne ñooy Sénégal ñoo xamul lan la ñu représenté dans ce monde nit ñi dañ ñuy xool mm-hmm. notre modèle culturel est unique mm-hmm. il est unique amul feneen dëkk boo gis configuration religieuse bi Sénégal am dëkk boo gis ci àddina bi ñu ngay xeex mm-hmm. Sénégal on partage tout problème ethnique mënul am Sénégal pourquoi problème religieux mënul am Sénégal pourquoi dama koy wax on n'est pas sénégalais parce que dañ bokk làkk on n'est pas parce que dañ bokk religion on n'est pas sénégalais que on est né, né du, du même père et de la même mère on est sénégalais parce que un certain moment donné de l'histoire suñuy maam dañu toogoon d'accord ci dara loolu héritage la héritage boobu mënuñ nangu benn nit ñëw moom kott ne daf koy yàq. et d'accord ci dara pour l'intérêt exclusif du pays. du pays ça il faut le souligner. mais loolu c'est ça qui fait la grandeur a renoncé à quelque chose. voilà chacun renonce à quelque chose. c'est ça de ce pays nous on est le phare de l'Afrique de l'Ouest nit ñi ci ñun lañuy xool. moi une nièce qui est aux États-Unis nee na d'autres personnes dañ ko naan mais lu xew Sénégal mm-hmm. tout le monde se pose la question. da ngay xool léegi ci réseaux sociaux yi tout le monde tout le monde se pose qu'est-ce qui se passe au Sénégal les gens chroniqueurs yi dans le monde entier ils qualifient ça de dictature et de tyrannie rampante il faut pas que ñu ñu nangu euh, benn nit avec son clan di détruire dëkk bi c'est pas possible détruire dëkk bi physiquement détruire ko dans son image ça on ne doit pas l'accepter et personne ne l'acceptera il faut qu'il le sache kenn du ko nangu. connaissant le président Macky Sall fan nga jàpp ne mën na fa yegg jusqu'où est prêt à aller. ah fii Sénégalais yi nangoo yegg rek moom ba ñu ci dara de <laughs> maa la ko wax de ba ñu ci dara de fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu bugg a yegg rek moom dina fa yegg. gaa yi dañuy wax day day du bàyyi. mais bu màttee du bàyyi effectivement bu màttee du bàyyi c'est c'est un vindicatif c'est un vindicatif gis ngeen lépp xeex la koy def pourtant toog nga fi nga ne ragalul contrairement à ce que les gens bien sûr ragalul ku ragal dina def li muy de bon les gens disent que tous les grands dictateurs sont de grands poltrons c'est vrai mais man de ki ma xam ragalul est-ce que du tamit peut-être dégâts yi fi mal gouvernance bi euh, euh, dee yi am yi ne xëy na ça peut lui retomber dessus est-ce que aussi c'est pas ça son problème mais loolu moom moo ko fi indi la faute à moom lañ fal si les choses ne marchent pas c'est c'est que son management n'est pas bon il faut pas qu'on fasse c'est-à-dire quand tu es le patron d'une entreprise si l'entreprise ne marche pas ce sont pas tes ouvriers c'est toi Macky Sall moom lañ fal mooy président de la République du Sénégal si le Sénégal ne fonctionne pas correctement c'est, c'est sa faute su amee ay dérives autoritaires su amee des violences dans les manifestations c'est sa faute c'est-à-dire s'il avait autorisé les manifestations du am violence parce que boo autorisé wul manifestation pour dire que dafay am risque de débordement je n'ai pas assez de force de l'ordre pour le mm. contrôler te bu manifestation bi am nga am assez de force de l'ordre pour le réprimer ça veut dire que yaa ngi def lu la neex les gens ne sont pas contents la constitution leur donne le droit de manifester mais les laisses chaque fois qu'il u manifestation autorisée nit ñi génn nañ ñaxtu wax li leen naqari ñibbi seen kër mm. de dérive mais bu fekkee nit ñi dañ bëgg a wax li leen naqari nga tere leen ko <laughs> après ça tourne vers la violence c'est sa faute. jërëjëf honorable jërëjëf Fatou <laughs> jërëjëf Théodore Chérif Monteil Mamadou Lamine Diallo lan la nag c'est c'est quoi moom Lamine Diallo il est contre le report depuis le début wax na ko nee na moom mënul accepter. wax na ko fi lool <laughs> que muy am que muy am report le ñun moomuñu ko. c'est-à-dire mënuñ toog ñu ne dañu report élection mën gis naa dégg naa un de ces ministres là naan c'est pas la première fois qu'on reporte des élections au Sénégal. une présidentielle n'a jamais été reportée il faut contextualiser il faut contextualiser qu'est-ce qui a été à l'origine du premier report c'était clair. aujourd'hui ce report là amul sens c'est-à-dire benn nit moo toog mu ne man affaire bi ni mu nar a demee nii neexuma donc je trouve un prétexte pour reporter donc il faut il faut il faut ñu kii euh, vraiment moom Lamine Diallo il a été très clair il ne veut pas de report il veut que les élections se tiennent à date échue te ci loolu la ñuy liggéey. fas yéenewul dialogue. ah fas yéenewul dialogue. ah non non non dialoguer avec qui. dialoguer avec qui et pourquoi eh, eh, cest à gis nga xam nga dañ doon wax Gbagbo c'est le boulanger de de Abidjan dafay enfariner gars yi <laughs> nee naa la kii kii c'est un spécialiste du somnifère dafay nelawal moom daf lay nelawal buñ demee foofu dina leen nelawal def li mu bëgg man man de toute façon moi j'ai jamais cru au dialogue politique mosuma ko gëm je l'ai toujours dit chaque fois qu'il y a eu dialogue politique on dialogue pourquoi la le Sénégal n'appartient pas aux politiciens c'est pas à eux d'aller s'asseoir dans une chambre pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ce pays le débat politique il est au parlement bu ñu buggee installer un vrai débat politique nañ dem defi ko assemblée nationale ñu respecter li suñ texte de loi yi wax suñ buggee def ay nag les ñu bàyyi des vrais techniciens du droit ñu def les bonnes réformes mm-hmm. bind ko tant qu'on continuera à laisser les politiciens écrire nos textes c'est des pièges qui seront toujours dedans on a entendu justement Ismaïla Madior Fall ak yu bëri yoo xam ne yëkkati na ko fi ah. tey on voit beaucoup de contradictions euh, ci ci li mu waxoon euh, mais bon je pense que honorable il faut œuvrer pour le changement absolument yaakaar naa loolu rek moo mun a génne Sénégal ci li mu nekk parce que tey li xew kenn mënu ko qualifier on on a du mal à trouver les mots en non ñu ngi ci euh, ñu ngi ci gutt gi li ñu nekk xam nga xam nga xam nga damier dafa am benn benn benn situation bu ñuy wax gutt. Hmm. boo duggee ci gutt daf lay forcer benn coup ci gutt lay nekk nag coup bi dañ ko war a jouer te coup boobu buñ ko jouer dafay am conséquence. ci loolu lañ nekk il faut que ñu xam naka la ñuy jouer bi mu ngi ci kawu askan wi ah, parce que man je pense que le peuple aura le dernier mot euh, s'il le décide on a vu ici d'autres tyrans Yaya Jammeh était en Gambie euh, d'autres étaient ailleurs jàpp ne mun nañu def lu leen neex kan moo fexe ba mu jógee fa sax moom <laughs> suñu waay moom moom moo ko jiite woon Euh, donc hmm. ñu ngi lay gërëm honorable hmm. maa ngi lay maa ngi gërëm bu baax Fatou di gërëm Jérôme ci occasion yi nga may may jërëjëf waxtaan ak Sénégalais ci disponibilité bi nga euh, am aussi ci ñun bu ñu la woowee nga wuyu suñu donc euh, loolu aussi ñu ngi la ci sargal bu baax a baax di rafetlu aussi kàddu yi merci beaucoup ak dëggu gi loolu <laughs> internet yi ci live bi justement ñu ngi la koy sargalee di rafetlu aussi sa taxawaay en tant que sénégalais ce qui fait la grandeur d'un homme c'est sa constance et ba ñu la xamee ba tey aussi ci constance boobu nga nekk Jérôme fi mu ne daal je pense que moom dañu war a rek euh, yëf yi leer na en fait les masques sont tombés comme on dit ñi nga xam ne askan bi moo leen ñor ñu wone ko depuis très longtemps euh, nañu xam ne ñii ñooy ñi Sénégal ñor parce que man jàpp naa ne ñi nga xam ne tey ñoo def lii ñoo dugal seen loxo ci lii ba mu sotti li leen intéressé c'est tout sauf le Sénégal parce que c'est le Sénégal qui doit être au-dessus de tout et mhm. c'est le Sénégal seul qui compte donc euh, ku fi wax aussi Sénégal moo tax ngay wax parce que réew mi dañ koy bàyyi ak suñuy doom bàyyi ko suñuy sët mhm. suñ ko bàyyi réew moo xam ne teguwul ci dara amul benn fondement benn nit mooy décider ci lu ko neex ci intérêt boppam mais euh, <laughs> je pense que ku nekk war nga xalaat responsabilité bi nga gàddu vis-à-vis de de boobu mhm. jërëjëf jërëjëf honorable